politiciens a ngi toog waaye ñun dañuy sant yàlla bu baax julli ci Rasulullaay gërëm suñu ñaari waajur sant Serigne Touba sant suñu patron bi toog. ñu wàññi coow li. nga ne toog. defe naa ni tuuti naa sax pour wax waaye xam naa lu ma yónni la ak lu ma musicien yi am daal yëpp yónni la. Omaro. suñu patron bi toog. waaw yal na yàlla guddal sa fan. yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk say teraanga. ñun de képp ku nekk Ramadane doon fa musicien kenn jëpp kenn merewu la barke Seydina Muhammad ndax ku ne gis nga nit ñu def ku ne gis nga li nga séq ak ñun àdduna nag doon na loo xam ne tey jii nii sànq ma ko ci yow mënatuma ko sax wax ci yow di xool moo tax bu may waxati ci yow damay xool fële baa nee na ki tax gën koo wër te gën ko gisee nee ko jërëjëf ñi a koo mën wax rek ci kaw ñii mën koo wax ci suuf ñii mën koo sant yàlla nag santal la ko yow mii toog ku weddi rek xoolal ñi musiciens yi nga uuf yëpp ci nekk am na foo nekkoon ci kër nga doon fa la nga fa doon ak na la fa yàlla sempee ak ni la fa yàlla jëlee ba ni nga ko defar defar ko ma koy wax chaque jour ba kii ba démb rek Omaro koy wax ma ne man damay sant rek dang ñoo uuf waali waali li nga yenu diis na dañoo joué benn jour benn soirée ma tas jël sama kase ba pare di génn ma romb lu mat quinze personnes yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi fayeeku ci ñu ma gis rek man tabarki Seydina Muhammad kenn tëggul kenn woyul kenn feccul kenn tàccuwul dañuy ñëw sax naan boisson toog ci kilim bi bu ñu paree jël seen kese dem a ñu laaj la waxooma ko loo ci jublu tey laa la ko fii ci kanamu nit ñi te yaa ngi nii gisoo ma gisuma la loo ci jublu nga ni ñoom ñi nekk ci man ñëpp ku ci nekk ay borom kër nga yaakaar ci man yaakaar gi la yàlla booleeg man ma war la koo jox ngay dund ak sa njaboot du ma ko tas te yaa ngi ni toog waxooma ko ma ne pat logoog moom bari na damay pare gis raa bi nii lay toll ku nekk di jël kase te kenn tegu ci kenn woyu ci barke benn su dajji naa ci mbay si mbay si daa ree ba daanu ci kaw tali bi ngir bëggoo tas yaakaaru kenn ngir bëggoo toroxal kenn waaye bëggoo kenn bëggoo bëggoo bëggoo bëggoo kuy tuutil nit bëggoo kuy suufil nit wax naa ko nee naa li mu gën a bañ ci àddunaam mooy nga toog naan ko diw nee na boo ko defee duutoo ko defati li mu gën a bañ ci àddunaam mooy mu toog ay nit nga cay jéem a xool kan moo ci jéem a doye di nga naan da nga boo ko defee duutoo ko defati ñun seen Ramdan gépp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi yeesalaat sunu njëbbal ci sunu digganteeg yow képp kuy musicien nag barke Seydina Muhammad ndax dañuy toog nag bu ñu bu ñu tukki jee dañuy toog nag ñun sunu sunu biir di waxtaan e dañuy toog sunu biir nag ñu nit di waxtaan bu ñu géejee ba pare wala ba na noo géej dañuy toog ci hôtel bi tamit ñun musiciens yi di waxtaan sunu waxtaanu bopp ñu ngi ni duñ ñu bàyyi ma fen kenn jëppewu la ci barke Cheikh Ahmadou Bamba waxumay waxu télé waxumay waxu public ak i tudd kenn jëppiwul ci te demuñu fenn de fu ñu jëm danoo mën a am lu la gën yow amuñu ko barke Seydina Muhammad mënuñoo am lu la gën mënuñoo am lu la ëpp fan lañ jëm wax naa ko fu ne teral nga ñu suturaan nga ñu jàppale nga ñu sagal nga ñu xam nga nu ñun ñooy gan bu ko dara lu ñu metti da ngay jéem a def ay affaire yoo xam ne sax barke sëñ Bamba mënoo ko ba ci sunu bi passé bëggoo firti rek kenn bëggoo mere maa ngi toog ak Baye Zane maa ngi koy dégg man loolu kër nga ne ko non Baye nan ñëw nan ñëw wol dagala ñëpp ñu ñëw maa ak ma toog a jàgg ma ne ko nii la mel ne bëggul ku mer bëggul ku am benn problème barke Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla yokk say teraanga loo mën ren yàlla nga ko man gërëm naa musicien yëpp nag yónni nañ ma waaye man par dama personne man Xaali Mbaye Dogo man ni ma def ak ni ma teralee ak ni ma jàppale ak ni nga ma dimbale sama biir famille ak ni nga ma ci man sama man sama ngërëm personnel yal na yàlla yokk sa fas jërëjëf Xaali Mbaye sa xarit mu ndey caab Aziz Faye borom fukki fan yéen ñaar ba ñëwoon Dakar nee na ñaar fukki junni yii moo ko jox sa yaay ndax nee na tey kenn du la jox ndax yaay ñi ko jox sa yaay nee na ku fi ñëw tey pour la ndawtal la ndawtal sa yaay ndax tur weeg ko bu baax damaa yónni. waaw waaw damaa jóg. barkeelu ubbil barkeelu ñi fi wax ñëpp rek. kenn ku ne am nga fi par mu tënk nag waaye maa ngi nuyu njaboot suñ tubaab gi fi toog. sëñ presse jërëjëf. yaa mën a bëgg. yaa mën a jàpp. yaa mën a ànd ak sa ndax yow Serigne Touba mooy sa maam waaye xam nga ni waali mii xëccoowul dara waaye du bàyyi kenn du Serigne Touba Ousmane mii damaa woo léegi ne ma damaa bëgg nga seer sama digganteeg waali ci yàlla boole gi mu boole ak yonent bi sëñ Bamba ak Seexul Xadim waaye sa digganteeg yow ak waali dootul ay wax ndax ñu fi jël parole ñëpp di wax kenn ku ne fi waali jaar ak yow àddunaa koy wax doo ay wax jëf la te Serigne Touba Cheikh Rafal daana wax ne yàlla du fay wax bàyyi jëf yow waxu da ngaa jëf ko àndal tabaarkal la fexe nga ba tabaarkal mu mën boppam mën ay bopp waaye maire Baye damay damaa yónni teraanga ngi ci yem demal siyaar ji Seydina Muhammad bis bi nga koy wan yonent bi tabaarkal la fanaanuwul junni nga def ci lépp waaye yow yàlla xeexu la bu la yàlla xeexoon dalay xañ waajur bu baax xañ la soxna su baax waaye tabaarkal la nga am waajur bu baax woo xam ne tabaarkàlla ku ku jóg samp xelam bëgg ne Wally Seck moom laa bëgg a mel na toog ta nopp pour ne kenn mënta mel yow man sa bopp ba noppi tabaarkàlla na nga am kilifa fonk sa bopp fonk ku la yàlla booleel ci yow rek la tabaarkàlla dimbali mu toog dafa ne tabaarkàlla sama xol dafa fees ba li ma bëgg a wax yëpp mënu ma ko wax waaye tabax yi koy jox ay millions lay jar mënoon ngaa yem ci moom waaye yem ci doomam ji Sagnang ñam Sagnang Mbaye tabarkal la ko tànn bi la bi la gënal kon bu mboolee mi toogee bu la ko defee bu la ko mën ta fay la ko àllam ñu wax ba ñëpp dégg ko kon nag tabarkal la sa Youssou Fall gi toog yaag baayam la woon nga gëm baayam ngir sëñ Tuubaa te lu fi waaye am da nga ñàkk ba mu li seexu seexu xati sëñ Tuubaa ngay waajee moom ngay wàllee moo tax tabarkal la xëlëb xëlëb jëli jëli ji foo mu bari yàlla na yàlla defal jàmm boo tegoon fi million ne ko ma sa teel a yàmm million bi fii la koy bay yàlla yàlla dool fi jàmm kontaan na jërëjëf fii ñëwoon a gis ngeen eh, Amadou Gueye fii mi ngi ci mbooloo mi teew di nit bu yàlla baaxal waaye barkal la ñëpp yeewu na dama nit ñu yàlla baaxal ku fi teew di nga Bordeaux di wëllëre président Waly Ballago Seck ñëwoon urgence indi ko fi mu waroon def ñaar ñetti fan dellu Bordeaux waaye bi gan gi feeñ ci diggante bi daa bàyyi lépp toog di ko xaar muy Étienne Ndong borom Bordeaux borom Santos sécurité monsieur le ministre Joseph Ndong mi nga xam ne tubaarkàll la lu ne def na ko ci wàllu sport fii ci réew Sénégal ci diggante ba xam lay waat mooy bàyyam di dem mu jàll baaxal des gor di nit du valeur nit koo xam ne fu ko danaa fekk fa la ko bàyyi waaye nit koo xam ne fu ko lu baax fekk fa la ko bàyyi Étienne le président est content de toi le président est fier de toi nit du toog nga di ko waxal lu waxul président bég na ci yow xolam seet na ci yow ndax jàpp nga ko jàpp su gor jàpp nga ko te yemoo ci moom jàpp nga njabootam jàpp nga ay wëllëram jàpp nga ay xaritam jàpp nga ay istaafa jàpp nga ay ëkkasa ba yàlla sa jàmm yàgg bàyyi jaaraan loolu dul doyul Amadou Mbaye ñëw na fif kii Amadou Mbaye fif jërëjëf insisté Ton Seck fa mu nekk gënal ko fii ñaanal sunu yaay Kiné Diouf mu yàgg fi loolu tëwér ndax mooy sunu lépp ñaanal sunu yaay Ajaratu Kiné mu yàgg fi tëwér ndax mooy sunu lépp nee na ñu ngi ñaanal soxna Aïdara suñu jabar. mu yàgg fi mu yàgg fi lool déwén. te fekkee njëriñu yëpp. fekkee njëriñu xale yëpp. li ci des nag mooy. na li ci des mooy. man amatuma lu may wax. nee na amatul mu wax. fi mu toll li ma war mooy di wër ci mbedd yi di fecc rek di saraxol. li ko war mooy di wër ci mbedd yi di fecc di saraxol tey sant tey pooj tey noos. li waral li waral loolu mooy. démb. démb. ñaar lañu ñaar lañu woon. mu métti woon lool nag. nee na mu métti woon lool. ñu jaar fu ne. ñu jaar fu ne. jot nee na jot nañu ay xeer. jot nañu ay laspeer. jot nañu ay laspeer. jot nañu ay mool. jot nañu ay mool. waaye ñuy xuus rek. na waaye ñuy xuus rek. mu nekk nag ku am fit. nee mu nekk ku am fit moom président. xol bi rafet. xol bi rafet lool. mu bëgg nit lool. mu bëgg nit lool. bëgg ay doomu aadama. waaye bëgg ay doomu aadama lool. ñuy xuus. nee na ñuy xuus. di xuus. di xuus. ba yàlla def lii tey. ba yàlla def lii tey. kon Wally est ma fierté. nee na kon Wally est sa fierté. man amatuma lu may prouver. nee na moom amatul lu muy prouver. li ma doon ñaan yàlla. li mu doon ñaan yàlla. yàlla may na ma yàlla may na ko. bu fi yemoon sax mu nekk. bu fi yemoon sax mu nekk. yàlla na yàlla yàlla na damaa bëgg nag yéen nag mbooloo mi damaa bëgg yéen ngeen ñaanalal ma Wally yéen. nee na mbooloo mi nga bëgg ñu ñaanalal ko Wally yal na yàlla guddal faram. yal na yàlla guddal faram. wéral ay cërëm. wéral ay cërëm. mu yàgg fi lool tëwél. mu yàgg fi lool tëwél. ndax nag moom dundam am na njëriñ. nee na ndax moom kat dundam am na njëriñ. ndax am na particularité jeunesse bu nekk senegal ndax am na particularité jeunesse bu nekk Sénégal. wallaay laa bu ñu dëppoo moom. nee na billaahi bu ñu dëppoo mooma. bu ñu tegoo ci yoon bu ñu tegoo ci moom ci yoon mooma. bu ñu baaxee mooma. bu ñu baaxee mooma. kon nag yal yàlla nee na kon nag yal na yàlla guddal fanam. encore une fois encore une fois. maa ngi fierté kontaan naa ci. nee na ah ah président si sa fierté kontaan na ci moom. macha allah Amady Badiane jërëjëf. Mohamed naaj wi daal taw. am waaw ñu def sama liggéey. déedéet da ngeen daal déedéet da ngeen may déglu da ngeen may déglu man mu leen maa sorxo sorxo. sorxo sorxo mu leen mën. waaw da ngeen may déglu da ngeen a daa fort daa fort mu doon daa leer li ma def daa leer. da waa jam nañ si moom kàddu. dama ne dama ne waaw mu leen maa sorxo sorxo. mun leen maa percé da ngeen di dal aada bi mu laajee kaddu dafa koo jox bu naaj tàngee te lii di tudd waroon def ñaar fukki minutes mu jëpp loxo damay def li ma war mooy yemale si jotaay bi waaye ba ñu mën a jox kaddu kon jot a yuuxu jot a soroxol na kaddu ba sax ñu naan dama ni nawle daa foor fa ma ne naa faa dellu suñu jotaay bi fa tabaarakallaa dama ni ganu géwël soo ko amee loo ko terele lu dul kaddu ak ngan nga des na doolof dafa ni kutt bi ci poqotaanu gëléem bi ratt kat baa ko mën a xam moom ma dana mbocc wax wax waaw kay parce que suba si toppi kenn ku ne am na foo jaar ak moom waaw koy barki dee moo jaay yàqu dara ci julli gi waaw koy dañuy dox ba deux heures du matin jekki-jekk oto bu kenn dawalul Sénégal romb nu ma ni tee a xamoon ca jom ja kama xamoon ca bëgg lu baax la fa tabaarakallaahu moo nu may bu nu ko toppee mooma ñu topp la ba dugg ci biir daram nu fekk la nga ni yeewi leen ñaari xar nga ni ma am nga xar ma la déedéet nga ni Modou Mbaye am na xar nga ni ko déedéet ñaari xar la ma jox yëkkati ñaari xar nga jox barke ci loolu la def nga di nu sagal di nu teral ma rees may sa biige te sa baay fa tabaarakallaahu joon fa mu tegoon tànkam ci mbaax ci yiw ci gore ci mën lu baax foofu rek nga ne marias yàlla yàlla guddal sa fan dama ni waxal maag wokkal maa yem noo mën a def bàyyi ru jërëjëf alaaji Ismaïla Mbaye Omaro ñu ngi lay nuyu di kontaan ci su sunu nawle bu baax boobu nga xam ne ñu ne yow dañuy tase fu ne nga baax lool fexe ba marqué sa empreinte ci réew mi ngay waxal na ku ma a waxal jëmm ji toog marias yi may sa digga may sa digga maa ak ñi nga doon fekkoo leen fii benn maala ngay dégg ci réew muy maala mag waaye maala bu fit maala bu jom maala bu ngor maala gën a mën sama nit doo ko dégg fexe nga ba ñi nga àndal nga def leen ñuy waali sek ay surga ay naw la nga bëgg ñi nga àndal ñëpp fexe nga ba ñuy waali sek nga baax am ngor xam sa ah, bopp xam yaay kenn kon yow si bis bii tey képp ku fi ñëw rek am nga fi jàmm yàlla na bébé bi dund te am ndey baay doomi jaaga bàyyi jaaga dundal sa dund am na njëriñ Maria Sy Mbaye sa biir. Omaro xam nga lu tax ma dugg fi ma duggee kii mu teral mu Ismaïla Mbaye maak moom mi bokk ndey ak baay muy sama caatum yaay waali moom su ma taseeg yow France nga ma sa bopp di ma teral sa soxna soxna ay dara di ma teral ñu dama bëgg Wally yàlla na nga fi yàgg Wally yàlla na wér Wally tubaar fakkala macha allah li nga bëgg yàgg xam yàlla la ko suñu borom a teel sa nawle yal na yàlla laa ci duggee waaw Fray moofu mbaay daal ne mën naa wax